samedi bi wees yemoon ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mbaax commune bu Hann Bel-Air daanaka kenn desul ginnaaw mu di mag ak ndaw autorité municipale mouvement ak association yi ay kangam wala sax artiste ak acteur yu croix rouge yu Hann Belair ci eco challenge 100 tonnes bi wa panel B de Hann initié ko xew-xew bi nak mi ngi amee woon lu ko dali marinas jàpp Hann Montagne 6 ngir set li di B de Hann éco challenge ñu ko lancé initié ko par le président Mbacké Seck ak wa réseau B de Hann qui regroupe plusieurs associations nous avons vu que déchets solides pour cette place. Parce que nous avons vu que cette place est beaucoup de nous avons une participation pour que nous puissions puisse jouer. nous avons mobilisé à travers la zone euh, euh, mondiale de nettoyage. Nous avons fait un éco de 100 kg. Nous avons fait un de 100 tonnes de déchets. qui sont différents 10 qui, qui regroupe autour, qui sont autour de la baie de Anne, euh, dans les quartiers de Anne Bel Air. tey boo demee quartier bu ne di ngi mobiliser ñëpp ñu ngi mobiliser wu taxaw di remplir des sacs de déchets de 100 kilos euh, donc kon ñu ngi remercier ñëpp di remercier ñëpp ñu si jàpp waa Yaraax en plus euh, monsieur le maire Babacar Mbengue. xew-xew bi nag nak yamak ak li di journée mondiale du nettoyage de la planète askan bu Marinas en 3 ànd waalo Anne Lebougi ba montagne ñëwoon teewe ci eco challenge bu groupe B de Anne collecte cent tonnes de déchets ci tefes gi mu nekk challenge bu ñu réussir. tay nak liñ ci def dañ ci def euh, vraiment lu bees tax lu bees li mooy dañu bëggoon képp ku dëgg tefesu yaraax képp ku dëkk ci B de Anne bi nga génn jël juroomi saaku nga feesal ko mbalit loolu mu nekk cent kilos.

Auparavant, mon école la deuxième baie la plus belle au monde. Maintenant, nous avons challenger 100 tonnes de décès. Nous avons par point focal. Quand nous avons essayé de faire 100 kg de décès. Je pense que atteindre un objectif va rompre parce que amon 160 oj ça c'est biodégradable. On peut remplir noko. poser si 1 kg. Légui ñu 171 kg je pense que atteindre nañ objectif du challenge bi. daanaka ci le tollu ñaar fukki at askan wi xaar ba tey li di tàmbaliwu ligue ñeel dépollution baie de Hann waaye kii di activiste des activistes, di ñu xamal amul ben population ak riverain bi ñu impliqué ci bile projet ndaw yi ñoom di ñaax askan wi dëkkee ci péegu géej gi ab watu ak sàmm lii di bee bi. dégg nañ war nañ ko lancer dégg lañ ci am parce que invité guñ dès que nous avons lancé lancer le 25 xaw le 24 Nous avons ko le sottil parce que nous avons ñu bëgg di Mais ce n'est at mais xeex bi parce que dañu avons projet complémentaire sur la dépollution de que nous ko def. aucun riverain aucune association communautaire n'est impliquée sama wax dafay leer parce que avons un comité de pilotage nous avons un syndicat du patronat nous avons un représentant mais population riveraine bi de Yaraax à amuñu représentant pour faire on va me dire voilà les communes sont présentes mais les communes communes l'État état là. parce que décentralisation état mon décentralisé jox ay mairie jox ay pour moi donc la différence la communauté Donc, donc communauté n'est pas impliquée institutionnellement dans la gestion de la baie Le projet de dépollution bi on sur la table depuis plus de cinq ans ñi ngi daw autour di top ci ginnaawam pour mën a euh, accéder ci loolu mais ça chaque instant rek ñu ni ñu ni euh, entreprise bi mo kalé nangam wala entreprise bi mo kalé nangam parce que ñun nekkuñu ci mbir yi fuñu nekk. voilà mais ñi ngi def le maximum ñi ngi def ay sensibilisation ñi ngi def ay forum théâtral ñi ngi def lu nekk ñi ngi sensibiliser gaay le li concept bi a ah, challenge bi sax ci sensibiliser gaay en même temps parce que avant ngeen di ñëw jël nañ rajo bi.

dem nañ ak suñuy propre moyen ñew nañ réaliser nañ journée bi danaka au niveau du Sénégal mën naa ne ñun kese lañ ci dégg pour l'instant mi def journée mondiale du nettoiement quoi. ci lolu ki di Babacar Meng nek maire bu Anne Belair and ak équipe municipale am rafetlu nañu initiative bi bu baax. comme ni nga ko xamé at bu jot ñetteli samedi ci biir mois de septembre moy journée bi nga xamné mom moom nañu jagleel journée nettoiement donc mun naa ne àdduna si yëpp di ko célébrer mais ren ñu nekk dans un contexte particulier un contexte Covid alors euh, le réseau B a symboliquement voulu en tout cas organiser cette journée convier ñu ci ñun ñu ñëw ci ci avec les associations les populations mais acteurs culturels yi fàttewuñu kenn looloo tax en tout cas mobilisation mobilisation bi am te gis aussi bépp en tout cas doomu aadama boo xamante ne yaa yëngu ci environnement ci écologie en tout cas teew nga fii pour se livrer journée bobu man nak bëggoon naa ci sama tour ñi nga xamné ñom la andal moy les élus sama adjoints mais tout le conseil municipal population yep pour féliciter en tout cas réseau Baie de ci initiative bi nga xamné jël nañ Baie de Hann nekkoon daanaka baie bi gën a ci aduna wërngal wayé ci tiaganu autorité yi ak usine yu ko wër yobé ko ci anam bu jéggi dayo bi mu nekk waaye askan wi ci seeni pas-pas ak manko jaarale ko ci collectif bi di Baie de Hann Mbacké Seck ak i àndandoowaayam di woy di amal seeni action te di dunde yaakaar que baie bi dina daldi di dellu ci ni mu meloon